Euh, Maymuna li na dal Sénégal yëpp la metti euh, ñëpp ko dund ci anam bu metti jour boobu soo fi nekkoon ba gis témoignage yi ak nit ñi ni ñu choqué woon mënoo ko sax imaginer mais yow ci sa bopp yow ci sa bopp nan nga ko dundee. <laughs> ah c'est une expérience traumatisante qui va me marquer mais dama ko bëgg a fàtte. et j'arrive pas à l'oublier c'est une expérience boo xam ne mosuma en fait am na loo xam ne tànk dalu la rek mënoo réaliser bu ko nit di expliquer euh, mënoo mënoo mënoo xam parfois damay toog ma xalaat ne euh, ça aurait pu mal se passer et qu'est-ce qui se serait passé euh, mënoon na ma bàyyil ay séquelles yoo xam ne ça aurait pu être irréparable irrétrapable mais suñu borom def na ci def na ci sutura mais c'est une chose boo xam ne euh, je mettrai du temps à à à l'oublier mais mais euh, elle ne prendra pas le le le, le dessus sur sur celle que je suis. c'est garder quelque part dans dans dans un coin dama koy garder quelque part dans un coin de ma tête. les souvenirs sont encore frais euh, dama koy xalaataat di ressasser waat di poser wu euh, beaucoup de beaucoup de de questions et mbir la boo xam ne tamit euh, voilà dina am ay changements yu bari yoo xam ne dinaa ko indiwaat parce que souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres euh, jusqu'à ce que ça vous arrive et puis. Euh, mais yow xew bett na la wala bettu la wala loo doon xaar ni mën naa nekk ci yow la wala déet. Euh, am na moment boo xam ne jete alerte parce que moment boobu euh, tension amoon na euh, ay menaces di am euh, ñuy joxe sama adresse di joxe adresse su 7TV euh, ay nit di la yónnee message sur tes réseaux sociaux di la di la menacer. bi mu 2021 bi muy nekk un phénomène nouveau euh, j'avais j'avais un peu peur je faisais attention j'étais alerte euh, au mois de juin aussi euh, pendant les événements de juin et même après euh, j'étais alerte euh, dama ci doon bàyyi xel dama ko doon dama ko doon sóoraale mais euh, xam nga loo xam ne bu bu yàggee da ngay dem ba da ngay banaliser et puis au fond de moi dama doon sóoraale rek mën nga am incident mën mën na am euh, voilà euh, une personne incontrôlée euh, voilà comme ça peut comme ça peut arriver mais mosuma xalaat ne Euh, voilà dinaa mos a dund situation bu mel ni je ne l'ai jamais envisagé même su ma doon xalaat di di di di sóoraale parfois ne voilà nit mën na la agressé mais du ma xalaat ne dina ànd ak cette cette cette cette cette violence là euh, bi mu àndal ak cette douleur bi mu bi mu bi mu àndal maa ngi fi toog maa ngi waxtaan maa ngi wax man je suis comme ça Euh, même su ma feebaree du ma tëdd damay liggéey damay def samay samay activité euh, mais après tamit boo demee nga wéet yow kese euh, dafa am ay sentiment yu yu ñëw